ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين nu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala bi mu ñu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci suñu dars bi di wax ci buntu bu am solo boo xam ni buntu bu ñu soxla la soxla woo la muy silsila boo xam ne ñu ngi koy def ci alxayaatu zawjiya assaida silsilatu alxayaati zawjiya assaida muy ay bind yoo xam ne dañ koy def ci waxtaanee naka lees mën a def ba taxawal dund goo xam ni ci diggante ñaari way dencante yi di sëy dund gu dal lay doon gu neex lay doon gu méngoo ngërëmal sunu boroom waaye ak bëgg-bëgg bakkani doomu aadama te la nga xam ni mooy la baax ci moom li may jël tey mooy jigéen ji naka lay def ba mën a tànn ci nar a nekk bàyyi doomam ah bu ñu gisee ni góor tamit nan lay def ba tànn ci nar a nekk yaayi doomam bu ñu gisee ni mën na caa bokk meneen bind insha allah mu doog a ñëw donte ñun la ñu gisoon comme bind bi ay jigéen la jàpp naa ni jigéen ji bu xamee na muy def ba tànn borom këram rek doy na ah bu ngeen noppee ngeen gis ni ku góor ci mënees naa indi na muy tànnee soxna ndax foofa xëy na du ngeen ay góor waaye dinañ concerné ci wet ndax critères yi góor di tànnee soxna yow boo ko déggee en tant que jigéen sabab lay doon ci yooye bu newul ci yow nga gaaw góorgóorlu ca boobu sens rek la wa illaa bu dul loolu loola góor ñi ñoo ko moom kon tey ñoo ngi koy def ci kan lay tànn mu nekkal ma sama bàyyi doom gis nga titre yi ak turu livre yi ak turu tem tem yi dafa war a am lu mu xëcc ci xolu nit ki pour xalaat loo seetlu ngeen ñiy wut ay société wala ay bind ay livre wala yu demee noonu wala wut ab école léeg-léeg dañuy tànn aw tur woo xam ne dafay ñod di waate automatiquement rek yow boo gisee titre bi rek bu dee téere la da ngay bëgg yër la ca nekk bu def école la da ngay bëgg a xam école boobu moom lan mooy seen doxalin su dee turu mbir la société la da ngay bëgg a xam société la tene ndax tur day xëcc ci sabab yu mel noonu tax na moo tax ma tànn tomb bi tuddee ko noonu mooy kan laay tànn mu nekkal ma sama bàyyi doom li tax ma tànn ko mooy ci say doom war a jël aw santam te loolu dootoo ko mën a soppi ba yowal xiyaam ah mbokk yi loolu day ndawewut de xam nga jigéen ji da doon liggéeyal diw ci ab société ñu dem ba mu yàgg ñu jële ko fa wala mu jóge fa bokkul ak diwa nekkoon jëkkëram ba mu yàgg ñu xeexale ko diw da doon jàngale ci école sàngam ñu dem ba mu yàgg mënatu faa nekk mu jóge fa bokkul ak diw daa takkoon diw ba mu yàgg ñu xeexale ko dama nekkoon ci nangam di jëflante ku góor ci jëflante yi lislaam daganal ba mu yàgg ma génn ca kooku bokkul ak kii daf maa takkoon ba mu yàgg ñu saxal li ko waral mooy jëkkër dafa nar a xam ci yow loo xam ni sa baay du ko xam sa yaay du ko xam jëkkër dafa nar a gis ci yow lu nëbbu yo yu nëbbu yoo xam ni amaan na sa yaay du ko gis ci yow sa baay du ko gis ci yow jëkkër di nga ko nangul loo xam ni doo ko nangul sa baay doo ko nangul sa yaay kon kooku ku sensible la koo xam ni jàpp naa ni bala ngay tàbbi ci moom waroo koo gaaw man su ma gisee mbirum sëy soxna yi di ko sorko sorko wallahi damay amut tiis am njàqare ndax damay xam ni ñii ay gone lan dëgg la dañoo xamut li ñuy tàbbi lan la sëy kenn du ko sorko sorko sëy da nga koy teeylu ndànk ko ba keroog yàlla di la wërsëgal nga am ca loo xam ni jaar nga fa nga war a jaar léegi nag soo ndànkoo teeylu ba tàbbi ca la nga tàbbi dëppoo wut ak na nga ko bëggee xamal ne dogal suñu borom ñëw na waaye jaar nga fa nga war a jaar ma wax leen ni aboubacrine siddiq doon na wax ni te déglu leen wax jooju bu baax ndax istixaara dana ñëw waaye dama la koy junj rek ngir nga xam bunt bi ni mu amee solo jar teel aboubacar nee na ma tàbbi ci benn mbir te istixaara wu ma ca ba pare réussir ca ma tàbbi ci benn mbir istixaara ca échec moo ma ko gënal defe naa luy worof leer na benn mbir a ngi nii ma tàbbi ci fekk bi ma ciy tàbbi damaa fàttee def istixaara waaye mbir ma réussir na ne damay ragal mbir moom man loolu dana loolu leer na mbir maa ngi nii ma tàbbi ci bi ma ciy tàbbi damaa fàttee def istixaara waaye réussite am na ca nee na damay ragal man mbir moom doonte réussite am na ca dama koy ragal tout le temps rek maa ngi naan mbaaru tàmbali bee nar a mel ni waaye mujjantal gi du baax parce que ñàkk istixaara gee tax benn mbir ngi moom istixaara naa ba pare tàbbi ca mu échec nee na damay kontaan dama naan c'est bon xam nga échec moom kenn bëgg ko waaye maadaama balaa muy échec istixaara naa rek sama xel day dal ne ah échec gi comme day waaye ne istixaara bi jubbanti na loolu nag war nañ koo dégg déggin bu xóot ndax ñun daanaka duñ faral di gisee noonu xam nga ni ki war a nekk sa bàyyi doom am ci yow sañ-sañ boo xam ne aalam bi yëpp duñ ko am ci yow nga xam ni mu neex la mu naqari la bu ñu bu say doom xësee jël aw santam loola moom mënoo koo suppi abadan te it nag ni say doom mel bëgg ni nga bëgg say doom mel ni booy tànni borom kër tànnil góor gu ni mel gis nga góor gu melut mel noo xam ni bëggoo say doom mel ni boo ci duggee dëgg dëgg da nga bëgg a nax sa bopp kon góor goo xam ni lu kenn dul gis ci yow moo koy gis ci yow lu kenn sañut ca yow moo ko sañ ca yow yore sa buum yeew la yëlit la yiir la war laa aar tayit nag la la ca dugal du la ca génne tayit boo ca tàbbee ba noppi nag derwees na mbuus su boobaa nag bala ngaa jóg war nga préparer sa bopp xool man góor gii nga xam ni man maa ko bëggal sama bopp gën góor la góor gii ma bëggal boppam moom gën góor la sariatul islamiya day bàyyiwut dara lépp daf ko organiser jàngal ku jigéen ci ana yan jumtukaay la mën a jël pour tànn borom kër te it nag ma tegal la ci ni insha allah fukki jigéen yoo gis ñu jaar ci tànnin wii bu ca kenn dee échec kenn lay doon wala ñaar te échec ba nattub yàlla lay doon waaye du nekk ak yàqu-yàqu parce que yàlla nag dina la jaaral fii nga jaar fa ba noppi nag mu seetaan la dee dana la dimbale waaye mën na laa nattu nag fekk ca kaw lan la digal ca nga nekk mu nattu la ndax noo gën a góorgóorlu sa digganteeg sa borom say nattu gën a nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa orienté jigéen ñi comme ni mu orienté waale seeni parents mooy nañu góorgóorlu bu baax ci yittewoo ci war a jël sa doom kan la moo tax salafu saaleh ñu mag ña dëgg nga jégg ñoom imaamul awzaa'i imaamul buxaari sufyaan altawri sufyaan ibnu uyayna imaamul shaafi'i ahmad ibnu hanbal abu hanifata ak malik ak ak ak mujahid ak qataada imaam yu mag yooyu ngay dégg te amoon ay njaboot yu jigéen ñoom daawuñ mayante lu tolla xarfatal ay ni ci tàgganee ci war a jëm sa doom saa saa sax ma nettali loo xam ni ñenn ñi amaana bu doon ñooma duñ ko doxalee noonu ndax xam ngeen yonente bi alayhi salaam bi muy labat Zeynab binti Jaxsin Zeynab dali ko mayoo ma istixaar te yaakaar naa bu doon yéene moom ku mel ni yonente bi ñëw moom defe naa kooku pour man jarul istixaar laay wax waaye Abdullah ibn Abbas wala kenn ca mag ña benn saxaaba daa ñëw di bëgg doomam mu ni ko may ma ma xalaat mu ni ko ah man xanaa bokkuma ci saxaaba yi mu ni ko après boo ci bokkee nag kon gis nga maanaam titre bi nit ki yore loolu bu mu la tax ngay ngay tàggalee yenn yi ay diw ustaas la diw borom xam-xam la diw mooy jàngale fii wala moo doon def conférence ba fee wala diw moom moo jiite xaw ma seen mbooloo yooyu ay nit AMD seen affaire yooyu déedéet yooyu moom bu mu la yóbbaale bu mu la fëkk déedéet yooyu moom ay titre la yoo xam ni maanaam yow na mel ni sax amut na mel ni waa ji moom jiitewul dara nekkul ustaas xamut dara yow daal jaar daal ca jàddukaay parce que léeg-léeg seetlu naa ñenn ñi maanaam titre bi nit ki yore da koy yóbbaale da lay yóbbaale ba nga tàgganee yoo xam ni ëllëg ci si biir te loolu xam nañ ci lu yaatu maanaam li may wax ne xam naa ci lu yaatoo yaatoo yaatu gis naa ñu bari ñoo xam ne sax bi nañ ci erreur bu mel ni ca fekk lii moo leen ko yóbbee titre ko ñëw di leen bëgg ak xëy na yan ko xamal ak yan koy déggal yooya tax nga sukkandiku ci rek bañ a gëstu bañ a laajte bañ a istixaara fekk def nga erreur bu rëy jumtukaay yii day jàpp ko ay jumtukaay la yoo xam ni boo ko jëfandikoo ginnaaw istixaara ak diitoog ñi nga xam ni am nañ expérience ci mbirum sëy foofu tamit te incha allah maa ngi koy isaar rek donte dinañoo bind boo xam ngir loolu la istixaara kese maanaam diisoo tamit du caage ne ku ne ngay diisoo mbir mu ne dafa am ñoo xam ne ay expert lañ ci xam nañ ko xam nga yàlla ne fasalu ahla dikri ahla dikri tekkiwul borom xam-xam kese kese kese même lii nga xamante ni mooy mbirum sëy koo xam ne jàpp nga ni kat moom expert la ci xam na ci lu bari kooka boo amee aajo moom nga cee laaj wala su fekk waaj yoo xam ne moom daanaka wax dëgg yàlla góorgóorlu ab jàmbur bi yàlla la waaye xamul dara ci ci yu bari nga di ko laaj loolu du yomb kon ay jumtukaay ngi yoo xam ni bàyyi ko xel jumtukaay yooyu boo ko jëfandikoo insha allah yàlla mën na lay dimbali ci sëy ba nga am la nga bëgg jumtukaay ba ci njëkk mooy alxuluqu wa diin wala ad diin wal xuluq na nga jiital te def ko bopp muy góor ji ñëw di la labat bi wala yow ki nga bëgg a labatal sa bopp ndax it mën naa nekk na nekk koo xam ni diine mat na ca moom waaye jikkoom rafet yonent bi day alayhi salaatu wasalaam ak ni mu amee yërmande ci xeet wi ak yërmande ni mu feddlikoo ci jigéen ñi dafa soññe bu baax ci nga nar a associé pour ngeen bokk dund na nekk góor bu am diine ku ragal yàlla ndax mbokk yi ki am diine te ragal yàlla wax dëgg yàlla même bu la nar sa woon a yor yor bu sérieux ragal yàlla nga moo koy forcer pour mu yor la yor gis nga góor góor gi nga xam ni diine mi ngi ci moom maanaam yow chance bi nga njëkk a am même bu la yorut en tant que yow da lay yor en tant que seet bi yàlla ci yor ci parce que gëm na ni mas'ul la te yàlla dana ko laaj tomb bu am solo ngi bu ngeen war a bàyyi xel li tax ma ni nañ ko jiital parce que beneen tomb bu mu andiwaat insha allahu bi ko na la ëpp solo na am diine na am jikko ju rafet bu dee diine ji diine jaa koy jural ragal yàlla te ragal yàlla ga même bu la yorut ngir yow da lay yor ngir yàlla nga xam ni moom yàlla lay sédd ci bañ lay tooñ yàlla lay sédd ci bañ lay doyadal yàlla lay sédd ci gëm ni bu la xañee ay tay àq dana ko jëflanteeg suñu borom su ko defee loolu ak góorgóorlu la goo xam ne mi ngi tege ci njàngalam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuuh illa tafaalu takun fitnatun fi l ardi wa fasadun kabir bàyyil xel ni yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy sa kilifa gi gën a màgg bu yàlla jàlle waxuma tey way jur de yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy sa kilifa gi gën a màgg ginnaaw yàlla te kilifa googu moo ëpp yërmande ci ñeneen ñi la yërëm kon bu la orienté na la defal nangam ci kuut ci ni loolu boo ko defee di nga am réussite nee na bu leen benn waay dikkalee boo xam ni gërëm ngeen jikkoom gërëm ngeen diineem na ngeen ko may wala na ngeen tëyeeg moom su ngeen ko deful fitna lay jur ak yàqute gu rëy rëy rëy ci kaw suñu kon day mbokk yi xoolal yonent bi lim jëfandikoo fa zawwijuuhu may leen ko fa ñi jàng lugal arabiya dañuy wax ni li muy lëggéey bokk na ca mooy gaawal gaawal def ko summa amaatahu fa aqbara faatu na gaaw leen dem suuli ko fa gaaw leen ngeen dem suuli ko kon fa zawwijuuhu gaaw leen may ko bu mu yeexamtaloo yow ko jigéen ci bul yeexamtaloo gaawal nga ànd ak kooku ndax dañoo toll jamono joo xam ni borom diine ak borom jikko dafa jafe lool saa bu yàlla tàggatee ndaw loo xam ni fam yow am na diine am jikko ju rafet kontaanal te nga bég te yëg ni yàlla day indil na la xéewal yàlla tàggat na xéewal xéewal gi raam ba ci saran tànk ndax borom diine day boo àndeek moom fii di nga dund àjjanay àddina te it yëgal ni moo nar a xommat sa loxo yóbbu la ca àjjanay àllaaxira ja amaan na sax nga nekk soxnaam boo demee àllaaxira boo demee aljanna borom diine ak borom jub diine ji mooy na ne koo xam ni ku sàmmoonteeg farata yi la kooku moom farsu la waaye bi ma ko xoolee gis naa ne ah moom day amaan na ku farlu la ci ay koori gàtt nga ku farlu la ci saraxe ku farlu la ci jàng alquran jàkka ja du ko tardé juma du ko tardé te gis naa ni moom kat relation ak jigéen ñi seetlu naa ni moom dafa gàtt trop maanaam xuutewu ci jëflanteeg ay jigéen ah seetlu naa ni moom de ku yaw la ci ni muy waxee seetlu naa ni lim ay lim ci li ngeen xam ci wàllu diine te boo laajee nit ñi loolu la ñuy wax ci wàllu jikko gis naa ni gaaw la mer mbaa même bu gaawee merit day moom bu ngeen waxtaanee léegi lan jàppoon bana ko jàll te leneen da koy fàtte sax ah nayut soxorut fermé wut ubbeeku na pour jëflante ak nit ñi ci jëflante bi gën a rafet ah ak ku am yërmande la ah yooyu ay xeeti mbir la yoo xam ne ay jikko la ñaar yi de mbokk yi tey ku mu daje ci moom ba nga yëgal ko sa bopp yëgal ni jëkkër googu fabal wa ma al asafi sadid saabaat yi muy soxna yi tey ndaw yi soxna yi ñoom dafa mel ni digle bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu doyu leen loolu lay nuru wax dëgg yàlla neexul ba neexul loolu lay nuru ndax balance bii pour nga gis ku ciy peese néew na man moom teg naa ci bët waxuma ci jamono salaf saalih waxuma ay téere de teg naa ci bët ay nit yoo xam ne wóor na ma li ma mën a seede ci doomu aadama xam mooy peesekaay bii lañ doon peesee ñoom man loolu xam naa ko kon moo lay wan ni fi zawaya xafaaya wa fi naati baqaaya ruq yi ba léegi boo demee fekk am lu fa ne waaye nit ñi ba léegi nag ñuy góorgóorlu ba léegi ñu ngi ci def na waaye bariwut comme noonu ñu leen gisee ñu bari ñoo xam ne wax dëgg yàlla sunna daa ngi fi diine jaa ngi fi nii rek waaye nag moom la ñuy tànnee moom du yoon ak sànn bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ban fitna moo gën a rëy ci julit boo xam ne farlu nga góorgóorlu muur saw yaram sàmmonteeg say farata di tàggan ba tàbbi ci loxol waa joo xam ni fiirut baaxut amut diine sàmmul fas fasam ba di la sàmmal sa fas fas loolu musiba da ko gën a rëy ban fitna moo gën a rëy ci nga tàbbi ci nga sell ba noppi tàbbi ci loxo yu sell te loolu lu am solo la mbokk yi sell ba noppi tàbbi ci loxo yu sell alxabiitaat yàlla mu ñu lil xabiitiina walxabiituuna mu ñu lil xabiitaat wattayibaatu mu ne lit tayibiina wattayibuuna mu ne lit tayibaati mu ne ulaayika mbarraun ma yaquluun yàlla mu ne gis nga jigéen ñu sell ñi kenn waru leen a jege lu dul góor ñu sell kenn waru leen a jël soxna lu dul góor ñu sell góor ñu sell ñi waruñoo jël jeneen soxna judul jigéen ñu sell ña jigéen ñu sellut ña nañ leen bàyyeeg góor ñu sellut ña góor ñu sellul ña nañ leen bàyyeeg jigéen ñu sellul ña kon yàlla daf laa fegal ba sa sellaay bi alhamdulillah yàlla baaxi na la nga góor góorlu bokk ci jigéen ñi sàmm seeni kumba ba caaxaan moom mësuñu la koo xamee amul lenn looy mottalee ak law lu dul fekk waa joo xam ni moom daanaka ma- mën naa bañ a yem ci yow mën naa bañ a yem ci yow mën naa ànd ak yow ba noppi dem ànd ak beneen jigéen fële jëlee fa feebar andi sollo góor goo xamante ni relation ak jigéeni jàmbur yi moom daanaka du dara kon kooka day salte ji fële ñëw di la salteel yow mu set ni te xoolal loolu la wala fi naan da ngay bañ a bëri ba noonu ñu bëri daanu ci sa kaw kon yow yaa ngi sell di góorgóorlu waaye ñàkk sell ak ki nga nekkal mooy dem ba day waral yow dootoo sellati yow parce que nag ku taq nag bu la réer soo taqal la loolu moom mënoo am benn maqaam ba du ñu yegg foofu moom taq na bu lay réer dina taqal même boo bëggul woon taq kon wax dëgg yàlla soxna yi nga xam ne góorgóorlu nañ walhamdulillah yaru ca seen kër famille mel melokaan wu lislaam gërëm sàmmonteeg njàngale lislaam ya war nañoo góorgóorlu ba góor ji leen di jël mu nekk góor gu set góor gu sell góor goo xam ni soxlawul ku dul soxnaam comme li nga xam ne yow fas yéene woo soxla ku dul sa borom kër kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam tànn googu la tànnal jigéen ñi diine ak jikko diine ak jikko amal na kenn ci yéen mu ni waaw mun ñu war a wax diine rek ba ñu wax jikko ndax diine mooy jikko ahankay waaye xoolal yonent bi sasam ay waxam ni mu jotee mu insisté ni diine daan ni jikko gis nga façon insisté boobu da lay wan ni maanaam jikko dafa am solo ci biir diine ndax du caage ni képp ku am jikko ju rafet am nga diine tey du képp ku am diine ju baax am nga jikko ju rafet ndekete nit dana nekk koo xam ni jaamukatu yàlla la waaye weccit wam yore ci jikko moom wax dëgg yàlla buñ la ko mayee sax doo ko jël te loolu xam ngeen gis ngeen ko léeg-léeg ñenn ci yéen danañ jàmbat lu mel noonu da ngay gis góor goo xam wax dëgg yàlla ñi ko xam ñëpp dañ koo naw ci wàllu diine waaye boo ñëwee nu muy jëflanteeg soxnaam wala nu muy jëflanteeg waa këram wala nu muy jëflanteeg ñi muy jëflante ci wàllu jikko vraiment yow da ngay bëgg sa suur ko te moo ne bu dul woon ak loola nga ko xamal ci wàllu diine moom àgg na te njomboxtal ko kon ndekete mbirum diine ni ah du mooy mbirum jikko bi de mbokk mi nii la mel nii la mel nii la mel ñu limal la limal la ci wàllu jikko waaw neel nu muy jëflantee moom ay way juróom waaw buñ paree foofu moom dafa yor soxna wala yor nu muy jëflanteeg ñoom yorul ay soxna am nay sœur am nay nangam nu muy jëflanteeg ñoom nga xool ay jëflanteem ay jikkoom leneen na ndeysaan nga daje góor goo xam ni ñi ngi ko nawee ci côté yi diine noonu nga koy nawee ci wàllu jikkoom jëflante leneen nga gis góor goo xam wax dëgg yàlla yar ban ko yar moo tax mu am jikko yu rafet waaye diine mu am ko lu bari léeg-léeg nga gis góor goo xam ni ñi ngi ko nawee ci wàllu jikko moom bu yeba nga ci wàllu diine bu yeba nga yem waaye boo jëflanteeg moom ci wàllu jikko rek nga xeeb kon ñu xam ni jamono bi ñu toll jigéen ñi ñoom nañuy tànnee du noonu ñoom daal na rafet na am kër na am oto nay liggéey Senelec mbaa Sonacos mbaa Sonatel mbaa seen et yooyu seen réew mi mbaa mu nekk ministère xawma lan gis nga yooyu amul solo déedéet te xam nga nit moo famille liggéey xëy dàq ko fa du dara loolu bu dee loolu doogal sax daan yow moom fi nga jafandu dëgëru dara dara dara dara xam nga kuy waajo daan dem jafandu ci gar boo xamante ni matudut sot xam ngay naroo jàmm kon booy jaflu da ngay jaflu ci lu dëgër nay liggéeyee fii ak bureau ñoom diw lay liggéey ak entreprise ñoom diw lay liggéey ak yooyu amul solo de déedéet ndax loolu mën nañ ko baa dàq mu jóge fa gis nga société mën naa xëy tëj yooyu du ay dafa dafa doyee bi sax maanaam nattukaay la boo xam ne vraiment ki kii tànn ngir loolu bu gestu woon tuuti corrigé boppam da yëg ni moom ku doyee di la nekk ndax li muy tànn dafa doyee te ku doyee di rek mooy tànn lu doyee bi waaye li nga war a jiital mooy waa ji bu doon ab roote ka roote nga xam ne ay garab lay roote ak ay fleur ak ay yu kenn xamul waaye jikko jaag diine ca baax na mbokk yi kookaa jaar sàmm est-ce que xam ngeen ni salaf ñu ñu yeral ñoom loolu lañ doon def salafu saalih ñin doon roy ñoom loolu la ñuy tànnee defe naa qissatu Saïd ibn al Musayyib ci ba muy tànnal doomam ji jëkkër yaakaar naa dégg ngeen ko qissa bu gudd la waaye bur ma tënk min baabi tat ci la ñu fàttaliku ko Saïd ibn al-Musayyib ca xam-xam ba ca ragal yàlla ga ca njub ga ca ñeent fukki at ku ko foog koo xam ne ñi la xam nee nañ doo tardé jàkk nee na man rus naa xool sama ndogu morom ci julli xam ngeen loolu mooy lan ah mooy lan ah nekk ci sàppe bu dul bu njëkk bi xam nga saa boo nekkul ci sàppe njëkk bi rek yaa ngi xool sa bopp morom mu ne man rus naa xool sama bopp morom ci julli moo lay wan ni moom ci sàppe bu njëkk bi rek lay nekk doom ji melal la ko noo xam ni ci xam-xam ragal yàlla ba noppi rafet na fekk jigéen ju taaru lool ba waa àddina xam nga jigéen ju taaru foo gis góor ñaa ngi koy waxtaane moom dañ koy jullee tisbaar maa ñu jullee ko timis rek wax te kaw maa wax ci suuf waaye jamono jooju doom ji mi ngi ko denc xoolal doomi buur doomi buur jamono jooju amirul muminin doomam ñëw di ko bëgg nga xam ni kullu naa yatamanna daalik doomi président de la république doomi maire diw doomi euh, ministre diw doomi député diw doomi ñu ñàkk fayda yooyu yooyu ñun moom lañ bëgg doomu président ñëw di ko bëgg mu gàntal ko ko mu toog ay fan gisul ibni abi wada muy ndongo bu doon jàng ci moom fan ya jàll waa ji ñëw mu ne ko waaw ibni abi wada yow fan yi dama laa gisul lu xew mu ne ko sama soxna moo faat inna lillahi wa inna ilayhi ay yow loolu boo amee doo ko yëg li ñu nangam nangam jàngam mu ne ko dama doon bañ a yàq rek comme yow fu ñu la fekk yaa ngi jàngal nangam loolu ila axiri mu ne ko ah waaw yow fas yéene woo takkaat soxna mu ne ko ah bu dee bëgg di mi ngi fi waaye man xam naa ne gëw may dinaa amaat soxna ndax man mbaaram ñax laa am aw ma mat laa man léegi damay woor ba ngoon du ma am lu ma ndogoo kan moo may soxla ba di ma may mu ne ko man sa sëriñ maa lay may waa ji nee na bi mu ko waxee loolu moom moom xam nga xam nga léegi nit doo ko xamee kaf sax waaye dina wax baat boo xam ne nga naan kii day kaf tay te fekk xamee woo koon sax kaf moom dafa jàpp ne kii day kaf tay sëriñ bi moom moom ñu ci dëggam mu dem këram woo yaayu xale bi ni ko sama doom jii day dama koo bëgg a may sama ndongo ibn abi wadaa soxna si tegu te baat parce que ñoom dañ leen a yilifoon de soxna yi tey nag ñoom ñoo yilifaate ndaw si nangu mu may ko ko ba noppi def loo xam ni ba tey maa ngi ngéeju ay nit defaat ko mooy jàpp ci loxol ndaw si ni ko kay dem sëy duggul oto duggul saret mu jàpp ci loxo bi nee na dafa ñëw tombeek waxtu ci nit mu fëgg bunt bi ibni abi wadaa nee na ma ni kookan la mu ni man la taid daal di fay yem mu ni bi mu ne man la taid maa ngi naan man ñaata taid laa xam ci àddina bi man man man fii ban taid la war a doon mu ni taid bu ma ku tudd taid ku ma mës a xam ci àddina xalaat naa la ba mu des sama sëriñ bi saa mu sayeb lu tax nee na moom kenn xamewu ko muy faral di génn yi dox foo ko fekk ma nga ci jàkk mi ngi jàngale kon lu fi wut si kon war ta nekk ko comme saayit rek mu ni man la saayit mu ni ku tudd saayit ci àddina bi ko ma sa xam ca xalaat naa la nee na ma tijji bunt bi fekk muy saayit ibnil musayyib ma ni subhanallah cheikh bi yow lu xew mu ni ko la ma la waxoon laa def dama laa digoon jabar may naa la ko ndaw saa ngi daal di ko bëgg daal di ko bëgg wax den yoonam waa ji nee na ma fay sama lamp bi ndax man dama rusa rusa rus néeg bi jagut mat laa ba jagut mbaar ma fokk da mu ni keroog mburoog diw mbiro mburoog lële lëfin ka huile de lii mburoog zayt nee na moom laa am pour ndogoo allahu akbar yàlla la ajab kooku ndax doon na seen tukki bu muy liggéey ak ñaata la am xoolal tey ñi mbokk yi billahi alaykunna yéen yii laay waxal kan ci yéen mooy koo xam ni ak góorgóorloo mën naa même bu ngeen ci amee benn sax xanaa mu baax ko waaye bu ñu xooloon mbooloo mi ci des ak mbooloo yi ci des daanaka pour nga am benn booba rek problème lay doon jigéen joo xam ni moom taamu na góor goo xam nii la mel insha allah mu wut àjjana ci moom maanaam yu baax yi dafa war a am ba tey loolu la Ahmad ibn Hanbal doon faral di wax ah ma yow jigéen ñi mel ni ñi ngi dund ba tey ci kaw suuf loolu moo lay wan ni sax biir dañuy toll koo xam ni yu baax yi pour nga am ko sax day jafe kan ci kan ci ñun rek mooy nangoo tànnee nii noonu lañ ko mayee ndaw si gis nga ndaw sa mel nam mel ila axiri qissa ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na benn waay boo xam ni dafa romb yonente bi ni ah waaye yéen lu ngeen xam ci kii di saagar saagar yi dem ma nga sol lu rafet mel nam war a mel ci xadis boo xam ne saagar saagar bi saad moo ko soloo ci xadis boobu mi ngi ci buxaari ci kitaabu nikaax nee na yonent bi lu ngeen xam ci kii ñu ne ah kii de moom moom tabaarkàlla moom de neex naa xool moom neex naa nekk jëkkërit kii de xam naa ne comme ñaan sa doom di nga ko ko may yeneen tamit toogaat tuuti beneen waaye daal di doom boo xamante ni ab waya waya la xam naa koo xam ne yére yi taxut koo jag lool daanaka yére bay jagal la ma nga settee ko fee mu tax fa ca des nee na yonent bi ne leen waaw kii moom lu ngeen xam ci moom saxaaba yi daal ne ah kii de yaakaar naa moom xam naa ni bu doon labat day gëwma ni gars yi danañ ko may soxna yonent bi ne leen gis nga kii ah gënee nag kee comme ni ko wolof yi waxee lu toll ni fukki mbu bëgg yaramu neen muy ka nga xam ne moom lañ jàpp ni mooy ku doya di sax kookaa gën kële fuuf kon moo lay wan nit ñi ni ñuy faral di tànnee du noonu mooy dañuy tànn ci wàllu saagar saagar rek colgaak oto ba mi war ak fa muy liggéey rek genre yooyu fekk yooyu amul solo amul sens loolu ku doya di mooy tànn lu doya di kon mbokk yi jigéen dina xam ni fii ak góor gi am na diine am na jikko yu rafet kooku doy na pour nga tànn ko ci jamono yonent bi ba tey sallallahu alayhi wa sallam am na benn waay bu ñu doon wax julay biiba danaa julay biiba moom dégg ngeen aw turam benn waay la woon boo xam ne dafa gàtt kanam gi am ay tupp tupp maanaam feebar yi xam ne la nga gis ay nit ñoo xam ni seen yaram yi dafa am ay picc yu mag sax mais léeg-léeg loolu natt la bu suñu borom di tegee loolu nag nit ki du ci dara yàlla moo ko ko teg julay bi daal noonu la mel maanaam mbindin ba daal xaw naa doy waar natt ba ca nekk anas ibni malik nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam daan ne waaw julay bi ba yow moom doo takk soxna mu ne ko ku may may mu ne ko xanaa ni fexe may la julay bi baa ni ko hee ndaw ko lamb man de kenn du ma may damaa lamb ba kenn du ma may soxna te waaju ragaloon yàlla la mu ne ko idan tajid nii kaafilan kon de ku lamb ngay am jëkkër ju lamb laay doon yonent bi ni ko gayra annaka inda allahi lasta bi kaafil yow de yëgal ni fa yàlla moom lamboo fa xaw ma nag ci nit ñi mbokk yi ku lambul ci yàlla kooka baax na kookaay ka baax sax nag laa wax julay bi baa ni ko man damaa lamb moo tax awma jëkkër awma awma awma bu soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko bu fekkee da ngaa lamb fi nit ñi da yëgal ne lamboo fa yàlla jàpp naa ne góor gu lamb fi nit ñi te lambut fa yàlla loolu lañ doon wut yonent bi ni ko kaay ñu wutal la soxna daal di def ay jéego ci dox fajal mbokkum julitam aajoom te loolu jàpp naa ne julit bu nekk war na ci bàyyi xel rawatina koo xam ne yàlla da ko nattoo xëy na am soxna yomb ko ah nga xam ni benn jigéen dana volontaire ngir sëyët kooku ngir yàlla ngir teggi tuuma loolu mbooloo mi mbooloo mi yëpp buñ ko mënu war naa am ñenn ñu ko ca mën bo wala kenn ku ko mën waajoo xam ne wax dëgg yàlla yàlla nattoo na ko silmaxa ci misaal te silmaxa mën naa dat sax ki nga tànnoon nag mu yor njàkkaar di xool dafa làggi leen ci ay cëram wala mel na melokaan boo xam ne amuñu amul amul amul soxna dafa jaadu woon minimum kenn ci soxna yi wala ñaar bokk volontaire wu sëyeeg kooku ngir yàlla ngir teggil seeni mbokk tuuma tuumay jigéen ñi sëyeetuñ ngir yàlla te effectivement loolu mooy am tuumay jigéen ñi sëyeetuñ ngir yàlla abi barzata nee na benn bis julay bii ba te bokkoon ci wàllan saar nee na saxaaba yi dañ daan def kenn ku ci mosaana amub jànq bala nga kaa gaaral génn góor ci yonente bi ngay ñëw ni ko ah man de am naa ab jànk ci kër ga bëggoo ko ma may la ko bu yonente bi bëggee nga may ku su bëggul nga doog a wëri keneen ndax yonente bi xam ngeen farataan tàmbalee nee na benn bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa di wax ee diw ci mbooloon mu ni naam mu ni ko sa doom ji jigéen ji laa bëgg nga may ma ko ndaw si ni ko waa ji ni ko yonent bi loolu kay kenn lu du ci teg baat loolu kay boo ko bëggee ñu takk sëy bi fii yonent bi ni ko takkuma ko pour sama bopp de waaye julay bii baa laa ko bëgg a may waa ji daal di diib diibal daal ni ah xanaa nga may ma laaj yaayam façon boobu nag yàgg na gis nga jigéen ñi saa boo ñëwee di labat ci kër ñu ne la xaar ñu wooy bàjjanam wala tantaab rek tëbal te nga xam ne tey daf tay sox kare ñu jigéen ñi saa bu ñu leen ci dugalee jox leen ci cërëb ci listéef rek yàqu yàqu tàmbali naa am jigéen deesu ko deesu ko laaj abeem wala wala wala ab dogalam xalaatam nag kañ lañ ko koo laaj te it am na ci droit wax ko waaye nag ab dogal moom amu ko ca biir kooku responsabilité góor la loolu nañ bàyyi xel ne yàlla noonu la ko tëddee sérieux ah waa ji daal di ñëw ci ndaw si yaay ji ni ko ah yonent bi day nee na daa soxla sunu doom ji jigéen ji mu ni ko loolu kay jërul woon nga ma ko yëgal mënoon nañoo takk sëy bu foofa mu ni ko waaye nee na julay bii baa la koy bëggal de mu ni ko julay bii baa mat mu ni ko xanaa julay bii baa meen na mu ni ko ah loolu moom du ci daal moom ndaw sax moom moom moo gën a taralam wax moom dane ko loolu moom xalaatuma sama doom ñu koy may julay bii baa ndeysaan allahu akbar te xool waa ji martaba ji mu am ci yàlla ni mu toll waaye xool mat al madharu shakli rek maanaam melokaanu biti bi ni mu mel nga xam ne nit ñi moom la ñuy gis rek loolu lañ ko xeebee bari waa na ci ñun ñoo xam ni ki ñuy xeeb ci al madharu shakli fekk na kookaa gënoon ci ñoom fuuf wallahu yaalamu wa antum la taalamun ñuy discuter affaire bi nar a jël temps ndaw sa fekk ma nga ca war a wa ca ginnaaw ca kër ga ca biir daal di génn bi ndaw si génnee mu ni waaw yéen li may dégg moom lan la xanaa du dañ ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo soxla bàyyi ji ne ko ah loolu la demee sax de mu ni gis nga yonent bi moom bu soxlaa loxoy kum ma teg baaxee ndax xam naa yërmande yonent bi du ma dugal ci lu baax allahu akbar mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax gis na waa ji ni mel xan kay gis na ndax gis na ndaw sax xam na ndaw sax waaye lan moo tax mu nang ko jël di ko tànnal parce que xam na ni waa ji li ñuy séen ci biti ak la ca biir bokk te loolu nit ki war na koo doyloo képp koo xam ne yàlla moo ko doyloo ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala mu taxaw taxawaayu yonent bi alayhi salatu wasallam ah bi loolu amee ñu daal di koy may ndaw si ah ñu may ko ndaw si mu nekk ak ab diir rek benn xare daal di teew ci xare yi lislaam yi julay bi ba génn dem ca fay yàlla dogal mu faatu xare bi jeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni waaw wëral leen ma néew yi gaaw kii naa man de gisatuma diw kon de boo demee ci néew ya la bokk kii naan gisatuma diw boo def yonent bi di leen déglu rek ku nekk lim rek maanaam ñoom ñii lim lépp limuñ jël julay bi ba maanaam dafa mel ni nit ñi léeg-léeg dafa dafa am loo xam dafa leen a topp ba bu ñu ko bu leen di lor sax duñ ko yëg maanaam xoolal ni ñu ko minimiser mel ni ñoom te xoolal saxaaba yi ku leen gënoon a baax moo lay wan ni maanaam lii lu ñu war a góorgóorlu la ñun ñëpp ñu ne saxaaba yaa ci bokk yéen ci war cee defar yonent bi bàyyi leen ku nekk naa man de sama doom bàjjen ba diw man diw diw diw yonent bi ne man moom julay bii baa laa ñàkk ci xare bi allahu akbar jug leen ngeen wërali ma ko saxaaba yi jug di ko wër di ko wër di ko wër ba fekk ko ci benn montagne moom ak sept personnes yu ko koj bëgg koo rey mu rey leen ñoom ñëpp ñu doog koy mu doog a faatu ndax jam-jam ya maanaam rey na juróom-ñaari nit doog a tëdd ci seen biir dee xoolal googu jàmbaar yonent yàlla bi bañ ko gisee daal di koy woo mu ñëw fekk mi ngi tax ripp suuf yonent bi faxat suuf si yëkkati ko teg ko ci aw luppam daal ni ah juróom-ñaari nit la rey ñu doog koy rey kii de maag moom a far kii de maag moom a far saxaaba yi nee nañ moom kenn tëralu ko woon ci kaw jaat jaat mooy loolu ngeen di gis bu nit faatoo ñu tëral ko ci pour jàppoo moom mu ni kenn tëralu ko ci mu ni lupp yonent bi pooju yonent bi moo nekkoon ab jaatam ba niñ ko suulee yonent bi faxat ko ba ba mu set xam nga ku faatu ci xare moom amul tang amul summi amul berkaal amul parfo amul dara ndax noonu nga war a dekkee yowmal qiyaam muy sa signal bi lay tàbbal àjjana bañ suul ko ba noppi yonent bi maasee la xabru ba ñu daal di dem ma dellu si waat ci ndaw soo delloo ci yenn ci riwaaya yi yu mel ni ci musnadu ahmad gis nga ndaw si bi mu defee test boobu yonent bi dafa kontaan sallallahu alayhi wa sallam kontaante goo xam dafa ñaanal ndaw sa ñaan gu dal kontaante ga mooy allahuma subba alayha almaarufa sabban sabba wala tajal aysaha nakadan nakada yow suñu borom lépp luy lu baax yàlla nañ ko sëmbërtal sotti ko ci kaw ndaw si ba kera muy faatu yàlla bu ak dundam masa naqari ba keroog muy faat allahu akbar xool gi ñaan mbokk yi ni mu xooree ñaar yi rek la ñuy wut ñun ñëpp am ay teraanga te bul am i problème gis nga bi jula ndaw si volontaire oo sëyal julay bi baa ngir yàlla ku def dara wala nga bàyyi dara ngir yàlla yàlla wërsëgal lu ko gën xoolal ñaan googu mu am tey ay moroom amuñu ko ndax sacrifice bi mu def ñaareel mooy borom kër la boo xam ni volontaire noonu pour kaay ma sëy yow fii ak vingt ans fii ak quarante ans par diir bu gàtt lañ def mu faatu kon aw yiwam yegg na insha allah defe naa noonu beneen ba ca des mooy barke boobaak yiw wa da koo topp gis nga bi julay bi baa faatoo góori saxaaba ya dañ ko doon xëccoo xëccoo ndax ndaw si ni mu jekkee ni mu taaroo ni ko yàlla baaxalee àddinaam ngir sababu ñaanu yonente bi góor ñi ñëpp di yabal seeni kàddu pour labal lépp ngir sacrifice boobu mu defoon kon amaan na nga sacrifié wu ngir bëgg a sëy ak diw sàngam te wóor na ne ay alal ak ay taar ak yooyu dugalu la ci yàlla daal di la cay wërsëgal xéwal boo xam ne musoo koon a xam musoo koon a ko jigéen a ngi joo xam ni moom daa gis ku silma mu ni man de insha allahu fas yéene naa jaamu yàlla ci mbokkum julit ñii sëyal ko ngir yàlla ba noonu la sëy ak moom mu wóor la ne xam nga ni kii man de incha allah rafet naa njort ni yàlla kese moo ko ca dugaloon ndax dafa am loo xamante ni jëru sax ngay wëri lu ko ca dugal boo xoolee da ngay xam ne lii yàlla kese la war a mën a doon xam naa mbokk mu góor moo xam ni soxna si ndax bi ko yàlla nattu moom dafa dafa dafa maanaam dafa gën a metti sax nattu yi nga xamante ni mooy dal nit ci ak laaj bi wala yenn nattu yaram kii may wax dama koo xam bu wér a wér a wér a wér du nettali dama koo xam wallahi ba ma déggee ne dafa jël soxna te man ci sama jëmmi bopp dama ruus man dama ruus ndax ca laa doog a yëg ni ndekete kii li ma rawee ay kilomètres i kilomètres la te yëguma ko woon parce que ban iman moo ko poussé ba mu def loolu jaaxal na ma trop ban yëg-yëg la am ba mu koy def kii ndax bi muy def lii mi ngi tagoom affaire bi daf ma daf ma travail jaaxal ma far maanaam foofa ma wax dëgg yàlla tax na cër bu ma ko joxoon orma ju ma ko joxoon dama ko dolli yàlla seede na ko lu tax dama gëm ñu ndekete kii moom maanaam pëndam sax seenu ma ko ndax lim def man yemut ci yéem ma waaye daf maa jaaxal te damaa foogoon ni loolu mënut am te lii may wax ni jamono yii la waxuma ay 1980 nga xam ni ñenn ci yéen juddoogul waxuma loolu déedéet ci jamono ji ñuy dund ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ma def na koy expliqué gis nga kon loolu jigéen ji war na cee bàyyi xel nga xam ni jamono buy tànn l'islam may na ko mu tànn waaye nag na tànn koo xam ne diine ak jikko mat na ca moom te loolu la salafu saalix doon tànnee foog naa bilaal wala kenn ci ñoom moo ko doon wax ndaw su xees ci te njool te rafet te amul diine ndaw sa melul ni moom ci am diine ma ko gënal doon te bët ba daa fat wa bilaal wala kenn ci salaf moo doon saxaaba yi moo doon wax loolu kon salafu saalix mbokk yi yàgg nañoo tànnee nii te naa nettali woon naa leen ndaw soosee di xasana nga xam ni taaram bu jéggi dayoo tax ñu doon ko wooyee xasana ndax xasana ci arab mooy lu rafet yow sa célibataire bi yàgg na di doo sëy muy dama gisagut góor gi ma bëgg gan góor nga bëgg mu ni góor gu am diine may ma diine di jooy di ma jooyloo di woor di ma woorloo di jëg guddi di ma yee di tarxe di ma tarxeloo góor gu ngeen gis mu mel nii xëcc leen na ñëw am na jabar góor guy ñëw te melul nii ni leen ko bu mu yegg si bu mu yàq ay waxam bu yegg see ma gàntal kooka yaakaar ngeen ni da doon tànn te xoolal gis nga léeg-léeg nag xam naa kàddu googu nag du leen neex yéen jigéen ñi waaye nag mooy li am gis nga jigéen bu ko yàlla dénkee lenn ci taar bu amul sens day réew damay faral di wax ni jigéen ju rafet rek réew te lii nag bu ngeen jógee laaj leen ko ñi nga xam ne xam nan ñi xam maanaam du du du wax joo xam ni dañ koy wax nii rek di ko bayal rek ngir wax waxantu dégg nga maadallah waaye loolu mooy li am rafet ak réew ñu ñaari raa yooyu ñoo ànd rafet réew jigéen moom bu ko yàlla dénkee taar rek boo amul sens mu réew man dama xamul daal affaire bi norme yi nu mu tëddee noonu waaye xool ku mel noona nga xam ni wax dëgg yàlla lenn ca nit ña la ñuy tànn ma nga ca moom wala am na ko ba doyal waaye moom ma ngay tànn góor gu mel nii ko xool li fu muy liggéeyee nu mu mel ak ila axiri yi déedéet waaye damay sëyal ko ngir yàlla gis nga fi mu ne nii fi mu ne nii jamono bi ñu toll pour wan na ni bunt bii góorgóorlu wuñ ci tey ñaari nit bu ñu àndoon duggandoo benn kër di labat ah kenn ki gaare oto kenn ki xaabar xaabar rek waaxoon mu tàng njëw ah boo sàggantul su mujjee ñëw danañ ko yeex a may de tegam danañ ko may te loolu suñu kër yi ñun julli ñi laa wax dëgg la nag loolu tekkiwul ni nit ki du tànn koo xamante ni dina ko mënal dara ci wàllu addi waxuma loolu dama ni bu mu nekk objectif bi bu mu nekk tamit nji- jiital ji bopp bi ah góor goo xam ne wax dëgg yàlla am na diin alxaafid ibni xajar dafa wax rek ju am solo te côté boobu ci côté góor ñi la mooy gis nga yi tax ñuy takk jigéen bu dajee ba noppi muy li diiniha diina ja askan wa taar ba alal ja nee na bu diine jiitoo nee na boo gisee ku am diine ba noppi dolli ca yeneen ci yi mu ni kooka sax nga war a jël ndax mooy sa bénéfice diine daa war a jiit waaye nee na bénéfice na ku ko yàlla defal jël kii kat am na diine ba noppi waaye askan wi mbokk ma macha allah nga xam ngeen ni askan dafa am jeexintal ci ndaw si léeg-léeg en tant que daawakat da ngay gis certaines familles yoo xam ne da nga naan ñii moom am nañ ci même boo leen xamul sax da ngay am ci ñoom yaakaar parce que askan wee tax wax naa ko ñenn mbokk jamono ji passé mu ñëw di ma yëgal rakkam bu jigéen bu muur magam bu muuru ma ne ko yàlla xam ne ni muuraay ji bettuma ma ne ko bettuma déedéet man de bettuma wax dëgg yàlla am naa ci mbégte nag waaye bettuma li tax bettuma ma ne ko lii ma la wax nag du njayal waaye seetlu ab daawakat la mooy gis nga am na yenn ci famille yoo xam ni maanaam am diine jomb leen ñàkk ko moo leen jomb ma ne ko loolu moom tawfiq la ju leen yàlla defal santee leen ko yàlla yéen seen famille kon yu mel noonu léeg-léeg famille bi entourage bi askan wi day def jeexintal ci ndaw léeg-léeg da ngay tànn jigéen joo xam ni wala góor goo xam ni alal ja wala taar ba wala yooyu benn waykat nee na jamaalul wajhi maa qubxi nufuusi ka qindiilin ala qabri lmajuusi nee na taar bu nekk ci xar kanam fekk waa jaa nga bona bona bon bay bëgg a dee mi ngi mel ni nga dem ba ci armée la ci taal fa sondal sondal ba lu mu koy jëriñ dem ba ca armée ba nga taal fa sondal fekk xanaa ngelaw li fay ba kay mbaa mu tàkk ba jeex rek waaye amul benn njëriñ kon jaadu na kenn ku ne buy tànn na jiital diine ak jikko ju rafet gis nga góor gi am diine ak jikko ju rafet faw mu yore la lu mu am di ngeen ko bokk ndax yàlla lay sédd ci ànd gi mu ànd ak yow te it yow yaakaar nga suñ borom ñu leen dimbali nekk fi ba tey nga war a jug tànnal sa bopp koo xam ni comme cadre la comme ni ngeen koy waxee nga bàyyi fi cadre yi dem ca ginnaaw cadre ya tànn koo xam ni wax dëgg yàlla moom bu dee alal amuta lu bari bu dee ci tab liggéey di taamu amuta waaye yow diine jënga gis ca moom moo la frappé nga daw lonk ko ànd ak moom ngir yàlla yàlla mi tax nga def loolu foog ngay dana la seetaan déedéet ah day fekk suñu borom du fi nekkati kon su boobaa te loolu amut suñu borom waxtu wu ne nii faw mu faw mu dimbali la dina la dimbali ba nga gis saa saa nga gis koo xam ne dimbal mi ko yàlla defal sax day yéex a yegg si nag loolu mooy kéemtaan bi moo tax ku gaawtu ku gaawtu doo war doo gaaw a jël meññeent de te jigéen ñu bari dañoo yàkkamti nag léegi da ngay dugg ci dara rek bëgg li war a fi tuddee tooba saxal mbaama sulli xam ngeen loolu tooba saxal mbaama sulli mooy nawet bi jot baykat bi dem ca àll ba yóbbu gerteem gas suur gerte ga ba taxaw te naa ko yee saxal léegi gaaw nga ñor léegi moo witt la dama bëgg dem kër xam nga loolu moom daanaka moom mooy yàqaat sa gerte rek tooba saxal mbaama sulli mooy ñun léegi dañuy am ay mbir bëgg résultat bi gaaw feeñ léegi xam nañ ci dund gi ñoo xam ni sunna sax tënku leen diine ay jullit lañ nii rek koo xam ni kam doon sëyal yàlla moo ko booleeg moom te muñal na ko waaye doomam màgg na ba am vingt cinq ans wala trente ans yàlla doo koy wallu dimbali yàlla doo koy wallu dimbali am na ku ma ca xam koo xam ni ci mu bunt bi la la mel bar sax kër ga dama faa jaar ci jamono ba may jàng loo xam ne kenn nettaliwu ma ko ndaw si ku ni mën a muñee te mooy ñëwee suñu meer yi ngay dégg ku ni mën a muñee ku ni jàmbaaree ku ni maandoo ku ni nangoo liggéeyee man damaa dem ba mu yàgg sax may wax naan est ce que jamono bi ma fay nekk sax faagee doon joxe dépense est ce que du maire bee ko doon joxe te man ci kër gi laa newoon maanaam mbir ma daf ma yéemoon ci ndaw si ni mel jamono suppeeku ba ma jóge fa ci ay at ma dégg ni góor ga faatu na ma dem di fa di jaale comme gis naa fa ba ma demee maanaam xam nga la waaja waxoon mooma dal waaja dafa tukki woon bàyyi waa dëkk bi ñu nekk ay jullit tukki ba yàgg mu ñëw sa way gis ñii di sol ay pantalon ñii di sol ay sippu moom daal mu mel ni ku gënam mu ni aral xayma hiya al xayma wa ara nisaa al xayma gayra nisaiha mu ni mbaar yi da laas bàyyi woon waaye ñii dëkk ci mbaar yi moom dëkkuñ fi woon mu ni aral xayma hiya al xayma mbaar yi moom xam naa ne ñoo fi samte woon fii mooy dëkk bi waaye nag ara nisaa al xaymi gis nga jigéen ñii fi nekk gayra nisaiha bokkut ak jigéen ñi mas bàyyi woon xëy na kon ñooy seen job kon bi ma yegsee fekk naa jamono su fekk ba yàlla wërsëgal ko doom joo xam ni macha allah ci wàllu àddina am na ubbeeku wërsëg soppil ko fa mu dëkk suppeel ko meloka maam dama mënta wax sax lépp nag sax ndax dama caa gis ba xam ca yoo xam ni dama koo xamoon ñëw fekk mu soppeeku dama ni ah suñu borom day ku mën a ko ci jamono ndax man ku ma waxoon ni lii dana am day ah dinaa gëm ni inna allah ala kulli shay'in qadir demul loolu demul danaa ko gëm moom waaye nag mbir mooma moom dana ma def ak jaaxle lool te laa daal di defaatee samay analyse gis ni kon wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhrajan ku ragal yàlla yàlla wutal la solution wa yarzuq min haythu la yahtasib kon ci gàttal jaadu na jigéen ji mu góorgóorlu tànn jikko beneen bi ci des te boobu boo gisee ma yàgg ci ñii nii parce que daanaka buñ ca yemoon doy na moo jëf solo góor goo xam ne day jàng alquran te di ko jëfe waxuma ne nan la nga tànn ko mokkal ndax ñëpp mënuñoo mokkal mbaa na wàcc nekk mu ñoo wàcc déedéet waaye daal minimum na jàng quran te it na bokk ci ñi nga xamante ni dañuy jëfe alquran moom la ñuy tuddee alquran sunna na nga tànn góor goo xam ni mën na li ñuy tuddee baaxa yent yàlla ni man istataa minkumul baaxata ku man sëy baaxa nag ci gàttal borom xam-xam yi firee nañ koy firee yu bari waaye la ma nañ ko waxoon laa koy waxaat al baaxata daal mooy al istitaatu ah ala al wati wal istitaatu ala al insan góor gi daal na nekk góor mën a bànneexal soxnaam góor gi na amul tuut lum tuut tuut tuut mën a dundal soxnaam jeex na ñaar yooyu daal mooy baax wax yi ñu ci wax bari na trop waaye boo defee conclusion bi du la jox leneen lu gis loolu ndax kat ba yonent bi Fatima bint Qays ne Muawiya may labat dañu ko kooku amul tus amul dara kooku mënu laa yore parce que yonent bi xam na situation Muawiya xam na situation ndaw si tamit loolu tekkiwul na ko amul tus duñ ko takk tekkiwul loolu de loolu tamit nañ ci bàyyi xel te foofu jàngalekat yi ñoo ko war di leeral mooy situation ndaw si ci boppam yonent bi en tant que yarkat jàngalekat père de famille xam na ni kii mënu koo yore parce que léeg-léeg dina am jigéen ñoo xamante ni ko amul dara bu leen yoree fitna leen di gën a jural loolu day am xoolal jigéen joo xam jot naa sëy ba noppi yore ay njaboot yore ay responsabilité yore ay nga xam ne yow daa góor gu am kooku du kooku wax dëgg yàlla du la mën a yore nag parce que da ngay loo moo tax foofu tamit ñu bàyyi ci xel ndax boo nee yeneen yeneen si amul dara rek nga jàpp ne kon ko amul dara kenn sëy moom fekk déedéet situation ndaw si day toll foo xam ne ala sabil misaal kenn ci jigéen ñi xam nga léeg-léeg ko xam ne xaw ma soutien de famille ngeen koy tuddee xaw ma soutien de famille koo xam ne bàyyam ak yaayam moom rek la ñu wala moo fay mag wala moo tàmbalee liggéey mooy dimbale waa kër ga loolu ko gis loolu la yàlla dogal mu nar a jël koo xamante ni sama yurub dara ba nag dan koo bàyyi loolu liggéey xam nga loolu moom du sotti moom du noonu moo tax it yu mel noonu tamit yu mat bàyyi xel la tànnal koo xam ni ku am yërmande la ci jigéen abu jahmin tamit ñëw na di ma di ma di ma labal mu ni ko yuu kooku de karawaas ga boo ko fekk ma nga ca baat xam nga góor goo xam ni karawaas ga nga ca baat wala ñoo ko jaar rek mu tekki seen cër gi moom googu góor moom baaxut moom déedéet maanaam dóoraate moom l'islam maye na ko waaye comme li ma leen di faral di wax rek li may faral di wax góor ñi mooy dóoraati moom l'islam da ko def dernière solution comme ni fàtte nekkee dernière solution gis nga ci wàllu yar sax ci wàllu yar góor yi foofu dañuy ekkat gis nga benn ñaar ñett rek nga dóor soxna si dootu la respecté mi ngi mel ni yow mi yar sa doom gis nga sa doom boo ko yoree benn ñaar ñett nga xët nga dóor dootu la respecté da ngay jël yar bi wekk fële ko defee bu defee jaaxum nga ni ko gis nga sama yar bi gis bu ma ko wàccee bu ma la ko dóoree yow maanaam mën a ci li nga koy def day tax xale bi day yaakaar ni yar bi moom mooy tukkal àdduna bi saa bu wàccee moom ci xelam xam nga xelam xale boobu la toll xam nga xam na ni yar bi mënta tukkal àdduna bi waaye gone gi dina foog na ni yar bi moom saa bu wàccee àdduna bi keroog lay tukki boo légéey bu dëgëraatee bopp da nga koy wàcce ba teg ko fii ni koy xaar ma fii dugg dugg lu génn xaw a kii foofu wëndeelu foofu tuuti rek muy kii tiitlu boo ñëwee nga xàcc ba nar gis nga lii moom xam nga ni su ma la ko dóoree yow fi ngay muy nappe nappe nga baalaat gis nga mu ñettee na da nga ko koy ñamal-ñamal yu saf sax yu saf lool bu demee ba sarxu ba sarxu ba tonn nga ni ko xam nga dinaa la baax tey waaye li ma la naroon def lépp sax def ma la ko ñamal naa la yar bi saa bu wàccee rek mu ci baax nga wekkaat ko gis nga kooku moom di nga ko yar waaye xale bi soo ko tamalee benn ñaar ñett yar ñëw après moom su ko la dundee xam ni amoo lu dul yar doo ko rey moom doo ko rendi moom xam na loolu su ko defee dañu mujj dër kii jigéen noonu la mel jigéen noonu la mel te dóor sax wax dëgg yàlla xam naa ni misaal bi ma ciy joxe mooy yonent bi ko jàngale de moom daawu ko def moom sallallahu alayhi wa sallam te saxaaba yi ñu bare bare bare daawuñ ko def donte nag mën naa jur jigéen ñi commencé di bang bang di indi ay tànki bukki waaye nag bañ koo def daal mooy la gën seet yeneen solution donte ki ko def it nag am na sañ-sañ ba ci lislaam donte seen société yi kenn sañatu ko ndax léegi moom defe naa gars yi neen ku dóor sa jabar ku nekk foofu lan mi ngi noonu waaye lislaam moom bu dee lislaam la ñuy jàngale lislaam la beneen bi ci des mooy te waxoon naa ko dama koy jaar min baabi kasawar mooy na nga ko nox ah wax dëgg yàlla loo bëgg a bëgg a def ngir yàlla tamit te noboo ko tamit du sotti de loolu tamit bàyyi leen ci xel ndaw sa daa ñëw ci yonente bi saa sallam ni ko man de Saabit ibni Qays ibni Sammaam mooy sama borom kër xam ngeen kuy kooku kooku mooy ka yonente bi ni ko woon yow moom booy dee di tàbbi àjjana allahu akbar xoolal da ndaw si da ngeen dafa est ce que dégg na dégg aha kay dégg na ko de bi surtout xujuraat wàccee mu ni man sama voix dafa yëkkatiku man maa ñàkk teggin di wax ci kanamu yonente bi di yuuxu kon mu dem yeew boppam ci fegg lal ba ni fii laay toog ba dee ndax man damaa damaa yare di ko xanaa yonente bi yeewi ma mu ñàkk a lekk say jooy ba furi yonente bi daal di koy yëg ni leen moom dem leen nee leen ko moom buy dee ci waa ajara lay bokk mu naan la dikkuwaay jabaram daa toogoon yàgg mu ne yonente bi dëgg dëgg xool naa ba xool waaye sama borom kër bëgguma ko mënumaa téye naguma ko mu ne ha mu ne ko waaw waaw mu ne ko yow xool nga li nga wax mu ne ko xool naa ko bu baax damay bañ nattu fekk ma ci wala ma weddi yàlla te duma ko yëg wala ma xañ koy àqam man caa tàbbi sawar te loolu jaralu ma ko yéen tamit ne ko lu mu la joxoon can mu ne ko ab tool la ma jox mu ne ko an tool mu ne ko mi ngi dara judóo genn garab goruñu ko fa mu ne ko xanaa nga summeeku delloo ko tool ba mu jeex léegi foofu li ma ci soxla rek buntu boobu xëy na borom xadis boobu xadis la bu siiw ñuy wax ci wàllu buntu summeeku jigéen bu dee buntu sëy bëggatul sëy bi ci condition yi mi summeeku xëy na fa lañ koy indi waaye li ma ci soxla man mooy xoolal daw si dégg ñun sa jëkkër ci waa ajana lay bokk ba noppi nga mën a génn ci sëy ba lu tax parce que xam nga ni góor boo ko nobu doo ko sëyal bokk na ca yanuy tànn tamit nag mooy nga tànn nawle donte baatab nawle nag gudd na gudd goo xam ne jàpp naa ni mënta jeex tey ndax waxtu dab nañu xëy na dara ci biir ñoo mën naa caa continuer doog a jàll te leneen waaye daal ci jàttal mooy fun la dul xeebee am na yenn situation yoo xamante ni boo ca demee kat mën nañ laa xeeb mooy góor gi dem fekk jigéen joo xamante ni sa waay moo ko ëpp classe moo ko gën a lii moo ko borom xëy wax nañ ci ay wax yu bare bari kon dama koy junj min baabi ishaara waaye xëy na laal la dar su bële di ñëw mën nañ caa gën a xuus sopp nañ ci ndaw si mu tànn góor goo xam ni dina ko mën a fegal bànneex fekk góor goo xamante ni sa waay daanaka ay âge six ans sept ans nga bëgg mu nekk sa jëkkër xam nga loolu moom daanaka du ay wax moom donte nag kenn du wax dafa xaraam nag kenn waxut loolu waaye nag daal seet koo xamante ni bu dee bànneex mën na la caa jox te bu dee dund mën na la caa dimbali loolu tamit baax na ca bokk na ca lépp loo xam ni gaar na ku góor ka ci xeeti natt yu rëy yi nga xam ni mëneew koo muñ feebaru ngaana wala yeneen yi nga xam ay nattu yàlla la suñu borom dana ko teg sax ay nit yoo xam ne aajana la ñuy dem bu soobee yàlla yooye bu yaakaare ni mënoo koo muñ jërul nga cay jéem a dugg parce que da nga cay dugg di bëgg lu baax dem ba ci biir di sut booy tànn nit nag du ca sart waaye góor goo xam ne xëy na mat na góor nga xam ne di nga mën a am ay doom te ñoom ndax islam te daa digal sëyal pour mën a am ay doom bu fàtte loolu wax dëgg yàlla nag xaw ma héritage ngeen koy xaw ma li nga fi bàyyi loola jàpp naa ne doom ju baax a ci gën la fa des lépp amul la njëriñ yow dañ koy teel doo lekk ko bala waaye doom ju baax moom day continuer nekk sa doom di la ñaanal ba keroog muy faatu fekk si la te it nag bul fàtte ni moom balay faatu mën a tax ay yéen seen maam diw nangam sëñ sax ñoom it di la ñaanal te ñaan yooyu mimma la takk fii ci yi nangu la bokk bokk na ca mooy na nga tànn góor gu gu dëggu te jub gu dëggu te jub góor goo xam ni du la xen mukk góor goo xam ni lum la wax nar na inna xayra man istajarta alqawiyul amin ndaw si ku ku ku expert la woon moom ndaw si dafa xool ku góor ko ba mu yàgg bàyyi ji mu ne ko bàyyi istajiru jël ko mu nekk surga ci kër gi mu ne ko yow lan nga xam ci moom ba bëgg ma jël ko mu ne inna xayra man istajarta ci gën ci surga yi alqawi mooy ku am doole ba man li li muy def al amin wóor du la wax lu amut te doo ko dénk lu muy saawal kon góor ma nekk ku am kattan nekk ku euh, jub nekk koo xam du la war du la fen tey du la wax lu amul te loolu mi ngi dugg ci moom ci ko yi beneen bi ci des mooy na bokk ci askan wu baax tamit nag dëgg la jigéen dañ koy tànn naan na nga tànn ku bokk waaye góor gi tamit nag wax dëgg yàlla jigéen ñi am na droit tànn ku bokk ci askan wu baax wax dëgg yàlla ndax tamit askan wa nga nar a dem sëyi fa tamit bu fekkee nan mel du naka dut noonu wala yu bari yoo xam jàpp nga ni yi mën na yàq sa diine kooka tamit mën nga koo sóoraale yii nag moom nekkul yoo xam ne obligation nit ci par force mu def ko déedéet waaye na nekk góor goo xamante ni ku nangoo re- responsable lay doon responsable lay doon léegi loolu noo koy xamee hmm. góor gu nekk responsable soo ko bëggoon a xam nooy def da ngay xool ni muy jëflante ci biir famille am na yaay am na baay am nay frère am nay sœur moom bu fekkee ay mbiram yëpp moom da kaa wékk ci baayam ak yaayam ak eh, kooku du responsable kooku moom responsable du def loolu moom ay sœuram ak i frère am am na lu mu leen mën waaye dimbali kooku moom du responsable moom problème bu am ci kër gi moom bu ñëwee danaa xaar leen ba saa baay ñëw rek la ko kooku moom du responsable déedéet faw muy jéem dara yooyu kon góor gu nekk responsable parce que ëllëg a tax waaye na nekk ku am yërmande te mën a nëbb sutura xoolal jigéen ni mu xawee koo sutura allahu akbar nga xam ne yow sa lépp ay ayib la daana nga nar a nekk góor gu ñàkk sutura goo xam ni sawaay ah yow daanaka lu ngeen yendal lu ngeen fanaan mu yend ci keneen kooku góor gu salte la góor gu mel noonu góor goo xam ne teewut làmmiñam kooku moom bu dee dara lu dul wutum jëkkër moom muñal kooku moom am na góor joo xam ne même buñ la waccoon lan la xamel bis bu ñuy tëdd ci bàmmeel moom la ñu nar a sëddaale waaye duñ ko wax déedéet lépp luñ la xamal ci ay ndax jigéen mën naa am ay ay waxuma sax ay nit ki mën naa ba teeku ci sa kanam waxeewuma ci buntu boobu waaye nit mën naa am ay ayib yoo xamante ni ayib la yu nëbb yoo xam ni kenn mënu koo xam lu dul borom këram ayib yooyu léeg-léeg nga gis ci yenn góor mën naa wàcc soxnaam ba noppi wax ko xam nga loolu loolu loolu musiba du ko gën a rëy kon góor goo xam ne téyewut làmmiñam moom bu dara dese lu dul wutum jëkkër doy na beneen bi ci des mooy fexeel nag muy liggéey lu dagan fa ni jaayee sàngara lay liggéeyee déedéet kooku moom baaxul kooku moom day yàq yàqaale la gis nga ko de fa ñuy labine seen caaxaan yooyu fa déedéet yooyu moom daansin sàngam lay li déedéet yooyu moom baaxut moom la ko waral mooy gis nga bu ci tibbee andil la da lay jox nga lekk ca ba noppi yëg ni yow mënoon ngaa julli guddi léegi dootoo julli guddi da ngay xëy xëy rek bàyyi wóoru sunna da ngay daan muuru muuraay ko jot nga dégg commencé léegi di di wërale da nga daan góor-góorlu sawaay di di jàng alquran léegi mën ngaa toog ba sa kaamil ku teer xam nga lu ko waral mooy lu bon lim lay jox nga di ko lekk mooy tardal moo lay tardal eneen yent yàlla bi nee na waajoo xam ne foo ko fekk ma nga soqaaral sawaru bopp di dem ak dikk la muy lekk dafa araam la muy naan dafa araam yëkkati ay loxoom naan yàlla may ma mu ne lu ko yàllay may kooku lu ko yàllay may fan na yustajaabu lahu kan moo koy nangu xanaa du yàlla déedéet gis nga Abdallah ibn Abbas doon na wax ni képp koo xam ne sa biir lu lewul mu ngi ci mu ne yëgal ni say jaamu yàlla moom rawatina julli mu ne yàlla nangu ko de yow nga xam ko de gis nga kon fexeel ba sa borom kër di liggéey lu dagan te nga def la salaf doon def mooy téye sa borom kër ni ko ah mbaa li nga ñu andil tey lew na bu fekkente ni lew na de baax na bu lewut day ñu muñ xiif ak mar moo ñu gënal ñu muñ mbugalum suñu borom waaye tamit na nga tànn góor goo xam ni maanaam góor la gu ñor gu ñor koo xam ni problème bu amee dana xam moom nan lay def ba régler situation yu mel noonu ci gàttal yàlla saa bu la wërsëgalee nga natt ci jumtukaay yi ba gis ci góor goo xam ni mel na ni wala boog góor dikkal la goo xam ni mel na ni xamal ni yàlla wommat na wërsëg ba sorom xarantey tànk yi ca des moom bul ko xool yàlla mën na lay dimbali nga am borom kër bu baax ci gàttal kon loolu moo nekkoon bind bi laal la bind yële di ñëw insha allah danañu laal ak lëf ci yenn yiy mottali tàndum borom kër doog a tànd nag ci istixaara ak labat wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi jazakumullahu xayran Ustaz am nañu ay question ay maanaam
waaw ci njëkk ci daf muy laaj mu ne ci tàmbali dàtt bi yaa ngi wax naan aman na jigéen bu baaxee wala jëkkër bu baaxee ñoom ñaar ñëpp ñu dem àjjana nekkaat fa ay jëkkër ak jabar mu ne li nga wax ne mën naa am day firnde ne mën na ñàkk nekk jëkkër ak jabar te nekk àjjana tamit waaw mu ne tamit lan nga lan nga xam ci jigéen joo xam ne moom dafa li mu bëgg daal mooy yowmal qiyaam wala ajjana jëkkër mu nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala mu ne beneen yonent wala benn sahabi yi
ci mu jikki di moom li mu bëgg def na de ah waaw yéene nañ ko bët wax dëgg yàlla alhamdulillah ala kulli xaal jigéen mën naa tàbbi àjjana te borom këram bi nekkoon ci àddina du ko nekk ndax benn mën ngaa tàbbi àjjana wala yasubillah mu tàbbi fa ca des mbaa mu yéex a yegg mën ngaa tàbbi àjjana it fekk yaa ko ëppalee daraja du ngeen bokk te du ngeen mën a fekkente léeg-léeg mën ngeen a fekkente it nag mën ngaa tàbbi àjjana it fekk na am na keneen am nga keneen loolu mën naa nekk ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na biñ ko laajee waa jigéen ji am ñaari jëkkër te ñëpp nekk yu baax moom kan la ciy nekkal àjjana mu ne xanaa ku mu jug loolu moo tax ñenn ci salafu saalex dañ doon dénk seen soxna su ma faatoo soo ko mënee bul am borom kër Abu Darda loolu la waxante woon ak soxnaam di soxna si sukuraat soxna si dañu ko ah yaa ma labatoon di takk ma tey nag mën naa lay labat ca yàlla fas yéene naa boo faatoo du ma amaat borom kër ba keroog may faatu man ngir ñu ànd ci àjjana am nañ ci yaakaar Muawiya ñëw na di ko labat ak ñeneen dafa bañ noonu la toog ba kii ak ñeneen ñeneen doon nañ ko def du ñëw ñu kese maanaam loolu du kenn kese moo ko def salaf saala looloo tax ñenn ci soxna yu baax ya dañ doon préféré bu la yàlla wërsëgale ndax léeg-léeg góor da nga nekk ak moom ba mu faatu waxuma la sax ay nañ bokk dugg àjjana waaye dootoo mën a nekk ak keneen day xaw a jafe pour nga nekk keneen loolu day faral di am parce que daf lay xamal nii na la loo xam ni ah yow li ngay gën a yaakaar njort moom doo ko mën a amaat loolu moo daloon dal umu sulay umu sa kële salamata law laa bu dul woon ak yonent bi ñëw tax kon am na jigéen ñoo xam ne seen borom kër su faatoo rawati nañu am ak moom am njaboot rawati nañu gëm ni ñoom soxlaatuñ góor mën nañoo muñ ñooña dañuy préféré di jaamu yàlla ngir yaakaar àjjana ak yaakaaral ko seen borom kër ngir bañu am beneen borom waaye daal ci gàttal jigéen mën naa dugg àjjana pare ba ma borom këram duñu ànd fekk na ñi gëm yàlla ba pare ci àddina dugg àjjana lépp mën nañoo nekkaat ay jëkkër ak jabar ama bu mujj bi rek moom loolu moom ah yombul de xam naa ni donte nag moom kenn du ko découragé loo nag waaw nit ki moom maag yonent bi dañoo taxal bëgg a- dama bëgg a taxal ak yonent bi kër sax nag moom nit sañ ne ko mbébét ndax jël buy mbébét du mbébét ay mbébétam mbébétam loolu nag nit ki bu ko bëggee faw nag mu nekk jaamukat ak yàlla nag bu mag a mag a mag a mag a mag mën naa nekk de waaye nag la koy tax a nekk mooy moom bu yeboo nga xam ni moom fi mu nekk nii ma futteekuwaat jot na naan sakkuwaat ba dëgëraat ndax ab yonent moom ah sama du ànd ak moom bi ajal muy benn ñaareel bi mooy faw nit ci di ko ñaan yàlla ndax ñaanut yàlla lu lu lu araama ñaan te it ñaanut yàlla lu mënta nekk te it nit ki bu ñaan sañ naa am yaakaar ci yàlla loolu nag nit sañ na ko wax dëgg yàlla comme ni nit ki di ñaanee borom këram gii nekkaat borom këram fële ca àjjana waaye daal di ko dëkkee ñaan ak fas yéene nekk jaamu ko ci yàlla ndax wa man yuti allaha wa rasula fa ulaika ma annabiyina wa siddiqina wa su ma annabiyin gis nga yonent yi la njëkk a jiital te maa jooju moom xam nga nekk soxna mën naa nekk ndax gisuñ tekk bu koy tere wallahu aalam
jazakumullahu xayr so muy laaj mu ne ki nga xam ne dugg na ci labat waaye njëkk loolu def istixaara mu ne kooku lan moo ko mën a xaar ci jëf jooju mu def ñàkk a ñàkk a def istixaara bu
waaw junjoon naa ko ci dars ba passé junjaat naa ko tey mooy mi ngi ci dansé kon nag bu dee toll na fuñ mën a rocceeku na rocceeku pour waajalaat boppam rocceeku nekkul mooy gàntal mbir mi waaye daal may ma dafa am lu ma bëgg a nafaraat daal tuuti bàyyi bàyyiwaat mbir mi mu teg daaral tuuti bañ a jokkoo téléphone bañ a fiyaante bañ a nangam istixaarawaat ñaanal yàlla te ndax dara weesagul amaa ka ca tàbbi ba noppi nag te istixaarawut nag kooka nag moom juum na njuumte bu rëy waaye nag du tee nay ñaan yàlla yàlla defal ko ndam wallahu aalam
Hmm. Euh, muy laajte mu ne jigéen joo xam ne gis na góor gom topp ci wàllu diinam ak jikkoom comme ni nga ko jàngale woon ci ginnaaw waaye nag euh, xamul ndax góor gi moom euh, xamee na ko moom jigéen jooju mais nan la war a def
ala kulli xaal nit ki moom lam mën a xam mooy xemem ak boppam mën ta xam xemem ak keneen lu dul def ko ko gaaral gaaral gi nag comme ni ma ko waxoon daal su dépassé nit ki sañ na ko sañ gi mooy islam may na ma nga gis góor goo xam ni bëgg nga ko te doy na la ci wàllu jikko nga gaaral ko sa bopp gaaral nag ki koy def tekkiwul day am wala du am déedéet maa nit ki day wut kuy wut ma mën ngaa mën ngaa bañ a am da ngay ñaan kuy ñaan mën nañ laa may mën nañ laa bañ a may su ko defee nit ki mu gaaral boppam te nam mën a gaaralee ba mu ginnaaw bu mu ca istixaara ba pare nag na ko istixaara jiital ba pare ñaante yàlla doo koy gaaral bu istixaaram nangoo insha allahu kooka dana ko xebel bu ko bu gàntoon amee rek day wane istixaaram nangu na kooka yow yaa ko bëgg waaye daa gënut ci yow te yàlla nag li gën la lay joxal wallahu alam
barakallahu fi kii muy laajte mu ne nan lay def ak euh, waa joo xam ne moom mooy jëkkër waaye dafa changé doxalin euh, gannaaw bam euh, bam ko takkee waa ji mu ne nag ab sunnit la waaye daal da koy dóor euh, euh, li muy doxalee doxalee ak moom daal rafet wala rafetatu gannaaw bañ marié ba pare
rafetoon na rafetatus di dama jàpp ne léeg-léeg mën naa bañ a nekk day fekk ni li wolof naan lu nuyoo ci sëy lu lu lu xaw ma nu ñu koy waxate ni lu lu su ko wolof yi waxe lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ci ngoro bi kaa fayut loolu mu ngi am ba léegi lu xaayda bu wér la léeg-léeg sag rambax rambax ak sag yàkkam ci bëgg a tàbbi ci mbir mi ñàkk a gëstu mooy waral doo xam yenn yi waaye waa ji changé wut de déedéet changé wut de gis nga jikkoog borom duñ gaaw a suppee wolof yi dañ di jikko boo tukkee nga di ko nëbb day taxaw ci buntu kër gi di la xaar bu amee benn fan bu xëyee mu bëgg la mu ne ah sawaay maa ngi ci buntu bi di la xaar de boo toogee ñaari fan ñett mu fëggaat sawaay maa ngi ci buntu bi de mu ne ñetteelu fan bi danaan sawaay yàgg naa mënumaa taxaw fii di la xaar day ñëw moo tax gis nga booy xool tuuti rek jikko ji feeñ te nit ki su fekkee teey ga war dëgg am na ko amaan na mu gis yu bari yoo xam ni amoon na da koo gisutu woon ak istixaara nga ba noppi teey nga jaar nga fa nga war a jaar loolu am nag nga gëm ni xëy rattub yàlla moom moo ñëw waaye lu mel noona moom nit ki lañ koy mën a dénk mooy mu gën a dollee muñ dolli ragal yàlla léeg-léeg dinaay faral di wax mbokk yi am na yenn situation yoo xam ni masalam conférence du moo koy rek loolu leer am na yenn situation yoo xam du masala booy jël dem ci conférence ba laajte wala dars ba mu jeex déedéet nit ki na seet borom xam-xam bu ko gën a jege te xam ci sëy lu bari mu ñëw gaaral ko boppam gaar ga mooy man kat man ñii damay dund nangam ak nangam bu dee kersa da koo jàpp mu woo ko téléphone ni ko daam kuy dund nangam ak nangam ndax leneen nit ki mën naa bañ wax ni man la sax daam kuy dund nangam ak nangam ak nangam ak nangam kooku ah loo koy xelal situation yi mu toll jàpp naa ne loola mooy gën a yemb nga xam ne la la lañ mën ta wax lépp kat laaj dees na ko ko gaaralal su ko defee moom dana la orienté te na ngay def bañ a jël rek teel a soobu ci yoon ndax loolu mën naa faral di yàq wallahu alam
waaw muy laaj ci mu ne ndax waaye ji nga xam ne laban na ko ba koy waaye tak dañ jàpp bés sax ndax mën nañu commencé di wax yenn wax yi ñoom ñaar
déedéet ba bis bi ñu leen di waaj a takkanteel ci heure ba tax tamit nga wax yenn la ndax foofu moom daanaka soxna jàmbur nu mu tuddati jigéenu jàmbur nga góoru jàmbur la ci yam lépp loo xam ne day jëm ci wàllu sëy wala yu demee noonu moom déedéet loolu du ngeen ko mën a waxtaan am na mbir yoo xamante ni nag moom nit mën na ko waxtaan du dara ah man de su ma sañoon ku ñëw nekk ak samay wayjur di nga def nangam ak nangam man de bëggoon naa koo xam ne damay jàppale samay jaamu yàlla genre yoo xam ne mënut a juru fitna ndax ba léegi amagoo confiance ci yi mën naa ko moom déet jigéen ji bu la wanoon lu mu la wërta woon ngir am confiance di nga ko takk mbaa mu wax la lu mu la wërta wax ñu dem ba ci biir mu fomm ci ngay xam ne l'islam ni mu ko defee noonu rek la kon fii ak néewuñ diw daal may na la nga ni bëgg naa ñu takkante am na yoo xam ne bu leen ko yegg ndax loola moo gën te moo gën a mucc wallahu alam muy laajte mu ne jigéen joo xam ne sëy na ba pare ndax mën naa soppi yéeneem ndax moom ba ngay dugg ci sëy boobu yéene wutoon ci topp yàlla waaye intérêt moo taxoon a jóg wala niroog loolu
xon kay suuf moom nit ki saa bu ko bëggee def mën na ko def fii ak dee dikkagul jant bi fenk bi nit ki mën naa dem fekk yàlla tax ko war a jub am na imam bu mag bu wax loolu nee na man di may jub di sàkku ci xam-xam nit na ne yàlla taxuma war a jub nee damaa dem ba ci biir sàkku xam-xam yàlla bi dab ma ci te loolu day am maanaam ba ngay jub xëy na xamoo woon li nga xam wala àggoo woon fi nga yegg tey bi nga demee ba ci biir mu ni ci laa doog a sellalaat sama yéene muy nag lii man dong dama ko wax ñu bari ci ñun loolu da leen di daal kon sëy nit noonu la nit mën a dugg ci benn mbir xëy na yàlla seen sab ko jub mu dem ba mu yàgg mu tuubaat tuub gu sell di jéggalu yàlla fu mu mën a toll njuumte booba te fas yéene defaraat innal xasanat yudil na sayiaat yu bon yi mën naa yu baax yi mën na koo xoom jële ko wallahu alam muy laaj mu ne looy digal jigéen yi nga xam ne jëkkëram du waxtaan ak i bokkam maa bokkam bokk jigéen bi bokk jigéen ji bokki jigéen bi jëkkëram du waxtaan ak bokkam yi moom jëkkëram du waxtaan ak bokki bokkam wala bokki soxnaam
bokk soxnaam am na ko fekk
bo- bokki soxnaam waaw dañuy wax ne al xukmu an shay far'un an tasawuri jox benn mbir àtte day fekk nga xam mbir ma lan la te góor ci ni du ma waxtaan ak samay mbokki soxna bala nga koy jugé da nga koy laaj lu tax doo ko def ndax it mën na kaa wax fekk am na ca raison de waaw loolu dañ ci bàyyi xel su dee la tax mu di ko def nag ak gàttañ lu laaj yooyu dañ koy wax ni ko loolu jaaduwut ndax sa goro da nga ko war a ormal da nga ko war a nangam même say mbokki bopp yëpp ci bokk yam ñaari bu mu ci mën doon nit ki dañ koy laaj raison ba tax muy def la muy def am na koo xamante ni def ko lu dul dafa doyal rek loolu moom wax dëgg yàlla gënul am na koo xam ne la tax mu di ko def dafa am fu ñu jaar koo xam ne bu la ko waxoon di nga xam ne moo nekk ci dëgg kon daal bu dee gàttañ loo tax nit ki di ko def loolu moom gënul baaxul te day yàq bu fekkee nag am na lu mu bëgg a faj wala lu muy defar kooku am na ca sañ-sañ wallahu
waaw muy laaj mu ne euh, dafa dégg ci mbokkamu jigéen mu naan muy wax naan euh, yëre yu weex yi soppuñ ko pour jigéen wala gënut ci jigéen yére yu weex waaw yëre yu weex
ah man de xaw ma boobu wax dëgg yàlla yonent bi daal sallallahu alayhi wa sallam taamu leen ci seen yére yu weex la wax te di ko taamu sàngee ko seeni néew te bu muy waxal góor ñaar jigéen ñi la doon waxal tegtal buy wane ne góor jigéen ñi bokkuñ ko man jàngaguma ko comme jàngaguma ko nag daal yére daal fii ak mel na na mu war a mel moom couleur ba daal xonq ba ni tur mbaa xaañ ñaaral yooyu daal mbaa ami tamlangal yéen cay def yooyu nga xamante ni l'islam da koy tere muy taar yooyu laa ci xam waaye daal am naa ci ni couleur bi daa vert ak daa ñuul ak dafa weex ak yooyu moom wax dëgg yàlla xaw ma keneen ci wallah barakallahu fiikum euh muy ko sa hein
kol waaw kol ak yére ala kulli xadin sawa ndax ci sarti muuraay bokk na ca lañ ci waxoon mooy ki taamu weex kese defe ni moom la beneen bu dul moom kooku juum na ki taamu ñuul tamit jàpp ne ñuul rek lañ mën a muuloo wala lu d' accord dañu kay nu mu gën a lëndëmee gën a baax loolu la ñuy wax rek nu mu gën a fattee gën a baax waaye nag couleur bi moom weex naag ñuul naag l' essentiel daal lan doon doyee kol na ko man kooku nag mu ngi aju ci sart ya muuraay bi mel wallahu taala alam
mu ne muy laajte ndax jigéen am na mën naa wax jëkkëram ne ko li nga may li nga may jox doyul dara
waaw bu dee noonu la ko waxee de baaxut ma
loolu la ko bindee ci waaw bu dee noonu lay noonu lay noonu la koy waxee moom baaxul moom wax dëgg yàlla ndax waxin dafa am léeg-léeg mën ngaa kaas say droit fekk waxin bàyyi tax doo ci jot bu fekkee moom dafa yëg ni lañ koy jox doyut na waxtaan ak borom këram ci waxtaan wi gën a dal ndax bariwaana loo yóot sa jotoo ci fekk yaa ko xañ sa bopp ndax na nga ko doon yóotoo tax bariwaana loo jot fekk na nga ci jotee ah man de boo ma mënoon a dimbali ndax fan yii kat li nga may jox nangam xam naa xeebalu ma la ko nag xam nga waxin dafa am te ñun wax dëgg yàlla waxin mënuñu ko fekk li ko waral nag mooy dañoo yarut nag ñun ñun ñun fi ne alhamdulilah ñun ñii ngeen di gis nii bu ngeen gën a góorgóorlu te sant yàlla yéen a yar seen bopp defi na nii maanaam soo déggee ma ne yéen a yar seen bopp mooy mooy jur woo xamante ni gënu laa comprendre diine kooku nu mu lay yare ku ko xamul ci l'islam loo xamul kooku nu mu lay yare yow yaa màgg rek su la dab la ngay jéem a yar sa bopp yow bu yow nga sant yàlla baax tey góorgóorlu maanaam bu ko defee yaruñu ñii nga war a waxee jigéen dafa war a am orma buy wax ak borom këram mu wax ndànk saa saa sax nga gis ñoo xam ne dañuy ñëw ba sëgg seen nopp borom kër di wax bu fekkee nit dafa nekk noonu ngay def bu fa nit ñëwul da ngay ñëw wax ndànk toog ci suuf mu toog ca kaw parce que loolu l'islam terewu ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen man de gis naa ni sonn nga li ngay fere bari na nangam nangam wax ay wax yoo xam ne wax dëgg yàlla bu dee li wolof naan bu dee nax sax neex ñu ngi noonu waaye nag bu fekkee da ngaa bëgg a ñëw li nga may jox doyu ma ci wax ni moom moom ah wax dëgg yàlla de la waa jëlee waxaloon soxna bi wala tuksiri sakwa bul bari looy jàmbat fa tadhawa bil quwa kon da ngay yóbbu sama coono bépp wa yaqbaka qalbi bu yàggee sax sama xol bi da lay bañ sax ndax laaj dafa metti na laaj dafa metti maanaam seetlu leen ni góor ñi li gën a gaaw ci merloo leen bokk na ci mooy laaj donte nag góor gi it war naa bàyyi xel ni la muy joxe ab sarax lañ ko koy bindal sarax moom góor di sarxay mer waaye nag jigéen ñi it nag comme sarka ba léeg-léeg mer mën na caa ànd ah yaay def ndànk rek xam na ngay jëflante sa borom kër bari waa ne soxna yoo xam ne alhamdulilah luñ bëgg seen borom kër ñu ngi koy am loolu mi ngi am te lu ma ni leen mi ngi am rek ça veut dire que am na ci yoo xam ne xëy na ci toll ci jàng àllu ab gàtt wala jëflanteem ak nit ñi xóotut lool mën na ko bañ a xam waaye ña koy wax ñoom mën nañ koo xam am na ñoo xam ne luñ bëgg seen borom kër dañ ko am su dee lu mën a nekk la lu ko waral parce que laajin waa defin waa tax waaye am na ñoo xamante ni fi nekk àq sax ay àq sax seeni borom kër ñu ngi leen koy xañ donte sax seen borom kër juum na waaye ñoom it ñoo ko yóbbee lool wallahu alam
di moom mujj si laaj yi mu ne daal bëggoon na nga leeral lan mooy askan bu baax mu ne ndax ndax ki nga xam ne eh, waa kër goo xam ne ñoom ay géwél lañ ndax baaxuñ par exemple wala askan yi géwél ndax baaxuñ
géwél ak géwél ñeeño ñeeño loo xam ne seen yëf yooyu loolu suñuy sedd la ñun maa anzal allahu biha min sultan loolu suñuy sedd la l'islam moom du wax sama yoon néew ci waaye nag dina ni man moom séddalu ma ko tegewu ma ko noonu te it nattukaay bi du loolu nattukaay bi du mooy nit ki di xool naan ci géwél laak géer laak ñeeño laak yooyu yooyu moom man dama jàpp ne sax jullit bu am fulla ci diine du ko lijjanti ay ki ngay labat lan la jullit la bu gëm yàlla man xaw ma ne ko def lijjanti wu ma ko kon jàpp naa ne yooya moom du ca la ñuy nattee askan bu baax déedéet nit mën naa bokk ci askan yu ñuy wax yooya ba noppi gën ka bokk ci askan yan jàpp ni yii mooy yu noobul yaag yu nangam loolu mu amul kullukum min aadam wa aadam min turab arab bi gënul ajam bi ajam bi gënul arab bi sant bii gënul sant bee sant ba ca des gënul sant ba ca des bii doyatu bii yëkkati ko dafa fekkee nag dafa am nit ñoo xam ne ñoom ñoo doyat ah xam nga benn mbokk day wax wax ju am solo mu ni nekk géwél aayu nangu koo aay nangu ni moom nga moo aay maanaam géwél ci misaal xëy na mooy ñi nga xam ne ñuy wayaan aka laaj aka fecc ak yooyu xam nga loolu li ñuy wax ne mu ni nekk ko aayu ndax loolu mooy askan wi waaye nangu gi nga nangu ni moom nga mooy yow doyadal nga sa bopp kon nangu gi nga koy nangu loolu moo aay waaye nekk ko moom aayu wax ju am solo ngoogu kon jàpp naa ni yooyu moom am solo jërul sax na góor di ñëw ngay lijjanti kii géwél laa yooyu jër jër yooyu moom jëru ko sax jërul jigéen ki la ngay lijjanti lii laaj du loolu askan bu baax kenn du ko nattee koo ñi ngi koy nattee ci ñoo xam ni wax dëgg yàlla teg nañ seen tànk ala siratil mustaqim ay jaamukati yàlla lañ doonte yeggunu fenn fa sax ndax seen ñàkk xamul diine waaye sàmm nañ orma am nañ ngor askan wu am ngor lañ da ngay dégg maire yoo xam ne dañ la ah tee ngaa see sëy bi yow de boo fayee ba yow nga xam ne askan yi mu bokk yaa ci njëkk a fay kooku ci askanu baax la léeg-léeg nga dégg ku ne la ah ñun de suñuy jigéen xamuñ sax sëy ba dee rek lañ xam ñooñu ci askan yu baax lañ bokk am na koo xam ne dañ naan la même bu ñu wekkee sa bunt ak sa fenêtre dem bu yebal nga toog muñ ndax bu ñu indil fa ci gàcce bi ba gàcce ci xawe bi maanaam genre yu mel noonu ñoom dañu am bañum rus askan woo xam ne ñoom am nañ luñ jomm am nañ luñ bañ am nañ lu ñuy rus walit naan la dalaa fekkoon ngay lekk ngay naan bu la mën tawee dana la indi fii xam ngeen bu fekkoon mbirum lekk ak naan dong la xam ngeen ba mu ko ñaanee kon duñ ko maye kon yooyu moom ay wax la yoo xam ne yàqu la su ko defee nit ki noonu la ñu nattee askan wala kii ñii la sant ak santul ne géwél laag géer laag ñeeño laag ila axiri yooyu moom islam xamu ko te contre ko te it bëgg sax nit ki di ko lijjanti ba di ko laaj wal ilmu inda allahi taala wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi dafa mel ni gën ci yonent yi pour mu yóbbu ko ca xeet yi gën wax dëgg yàlla gën ci gën tee gën fële loolu nag fadlullah yuti man yasha wallahu dul fadl azim doomu aadama léeg dafa war a di xalaat ngëneel yi ko suñu borom defal di ci góorgóorlu loolu rek dafa jar sant yàlla ba saa yi na xoolal xeet yi yaa ci mujj ñu ni yaa ci gën téere yi yaa ci mujjee ñëw téere ñu ni moo ci gën yonent yi sax yonent mujj ñëw ñu moo ci gën looloo tax juif yi ak chrétien yi éñaanee ñu ko suñu borom ni li allah yaalama ahlul kitab allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah ngir ñu xam ne mënul dara ci li yàlla def wa anna al-fadla bi yadillahi yutiihi man yashaa wallahu dhul fadli al-azim ngëneel yàlla moo ko yore moo koy jox ku ko soob bokk na ci biir ngeen li suñu borom defar mooy promotion fanweeri fan wala ñaar fukki fan ci fóotu ba set wecc salafu saalix day bokk yi bu ñu wooree bañ wooree daaw ba wori ci la ñuy takkaat seeni bagage pour préparer kooru déwén ku ñi koor gi des na fukki at fukki weer ak ñaar nga di ko préparer jàpp na ni kii nar na ñun nag maal asafi shadid ni ñuy def sax dafa rusa nekk li kon war nañ góorgóorlu baax a baax a baax ci préparer waat suñu bopp defaat formation ak entraînement ci jàng quran ci zikr ci sàmmonteeg di xool lu dagan bàyyi xool lu bon sarxe naafila yi jokko ak mbokk lépp loo xam ni boo ko defee dana jur aw yiw xilaq ya nga xam dañ fay tafsiree quran nga taamu ko di fa teew ndax benn yàlla dafay wàcceeg dal benn malaaka yi dañ fay teew yërmande yàlla dafay teew yàlla day tudd mbooloo te mbooloo yi de ko moom nga doog a ñëw nag ca lañ ci jariñoo ci quran bi foofu moom daanaka bëgguma la jariñoo ci quran bi waaye yii ma njëkk a lim rek jaroon nag bis bu nekk nga ñëw rek ñu ñum rek toog toog rek benn place yow déglu ba ci pare même boo dul la ñuy wax jëriñoo sax nga déglu nga dem sa yoon yooyu nag bokk na ci yi gën a rëy yi nga xam ne si war na ko bàyyi xel beneen bi ci topp nag mooy bis bi ci nekk muy laylatul qadr wala guddi ga ci dégg nga xam ne xayru min alfi shahr xoolal benn guddi ñu ni moo gën junnee weer junnee weer boo ko divisé par fukki weer ak ñaar mi ngi toll quatre vingt trois ans ak i weer ak kenn ci yéen rafetul xel wala mu njort daan dinaa dund quatre vingt ans loolu mu xalaatu leen ko sax yaakaar naa ak man ndax suñ jamono bi ñu toll a mel noonu waaw xoolal benn guddi ñu nangul la ko ni la may mel nay dund nga juróom ñett fukki at ak ñett ak i weer yoo doon jaamu suñu borom jàpp naa ni kooku moom boo tëddee war ngaa mën a nelaw yow loola nag bu la rëccee yégal ni yow moom lu ñuy séddale ci livre si la loola nag di ca góorgóorlu di ñaan yàlla rawatina fexe dogal koor rawatina taamu ca koo xam ne jàpp nga ni moo la gën a ragal yàlla boobu moom fa la gën a baaxee nag moom ndax lu mu gën a baax rek gën a baax yu mel noonu nit ki góorgóorlu tàggatu ca fexe jàng quran lu bari naafila yi bu la ci benn rëcc moo xam bëccëg yi guddi yi la ziyaara say mbokk jullit lépp loo doon def ci biti koor gi rek ful ko ci biir koor gi amaan na sax nag koor gi nar a nekk koor gi mujj ci say koor te fekk yow yëgoo ko waaye yàlla mu xam ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu sukkur ak tawfiq fi ne wala axira xëy na gàtt na ci tënk boobu mënoon naa gën a yaatu waaye waxtu moo ñu dab di ñaan suñu borom mu defal ñu ndam ak màng aw yiw ci turam yu sell yeeg melokaanam yu kawe yi rawatina alxajul qayub alxannaan almannaan dul jalaal wal ikram wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi
أنت حبيبتي أنت زوجتي